أعوذ بالله بسم الله الحمد لله wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi ni seetaan ci seen youtube bi ñu tudde xel du doy ñu àndaat ak yéen rek ci suñu téere Laxdari bi ñu ngi tegoon suñu baaraam wa nahyu anil anil munkar kon tey ñu dooree ñuy war a dooree ci wa yaxrum qaala abdurahman al axdari rahimahullah عبد الرحمن الأخضري له وحمي ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب ورياء والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمذ واللمث والعبس والسخرية عبد الرحمن الأخضري له وحمي ويحرم حرامنا عليه مكلف حرامنا مكلف الكذب فن فن dafa حرام ci ndax euh, bakar bu sene mën nga ko def ba ca du ag fenn fi bam dess fenn téere yi bindi nañu fenn rek ngay def ci bakar mu yëngal aras kon euh, lu dangereux la lu jaram maytundiku la julit warul di fenn warul di fenn yeneen bi man koy laaj lu julit wara def ci bakar mu ni bakar bakar bu ko wax mu ni waaw julit dana ko def julit dana sacc mu ni waaw dana sacc julit dana naan sangara mu ni waaw jullit dina dina dina dina lor dëkkandoo mu ni waaw lu nu ko wax rek ci xeetu ñaawteef mu ni waaw ñu ni ko ndax jullit dana fen fekk mu ngi sóonu woon mu daal di jóg mu ngi tëddoo mu daal di jóg sóonu daal ni abadan jullit du fen al muminu laa yaksibu waaw jullit du fen mukk kon nga xam ni fen moom lu lu lu lu jara may te la ci mu kàllaf ca waxaat na ci beneen xadis ni wa iyaakum euh, wal ماغ لين دي مايدن دي كلو فن فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار نينا فن دا فلي خيتي دي لا جيمي تي كاتيور سا كاتيور دا فلي خيتي توجور دي لا جيمي تي بالله كون غا فن دال لو دانجير لو لو لو لو جارا مايدن دي كلو با تاي مو واخني والغيبه ak jew ñu may te diku جوت لو حرام لا دا فا حرام تي مكلف دا فا حرام تي جوليت والنميمه اك رمبات رمبات دا فا حرام تي مكلف تا فك ñaar ño xamni seen relation ما شاء الله دا فخه دوخو دوخو دوخو دوخ رمبا جيلين با تاخالي لين ني نيك اي نون لولو دارا گنوكو دارا گنوكو ña واي دارا گنوكو فيتي كاو تي بكار والكبر اك ري ري دا فا حرام تي مكلف ري maanaam nit dana rëy ba loo xam ne nii sax intérêt la rëy xañ ko ko war a euh, xamul masala war a ko ko war na koo laaji waaye rëy naa taxaw ci nit naan ko lii ak lii naka lañ koy defee diineem sax rëy na koo laaj kooku mooy rëy koo gis foog nga ni yaa ko féete kaw kooku mooy rëy ca lu dangereux la lu jërë moytandiku wala ujub ak naw jëf naw jëf dafa xaraam ci mu kàllaf bu ñu nee mu kàllaf rek mooy ba nekk jullit waaw naw jëf mooy loo def rek yaa ngi koy naw toujours bu ko réew rek ngay def looy def yaa ngi ciy fëgg dënn bu dul woon man la bu dul woon man la bu dul woon man la ca ana ana laysa huwa waaw ana ana laysa huwa foo fekk kuy fëgg dënnam naan man la man la kooko du tus na nga xam ni kooko moom du dara wari yaaw ak gistal gistalu dafa xaraam ci mu kàllaf gistalu mooy lépp looy def bi uyuni naas danga koy def saalixan waaw lépp looy def rek ngir nit ñi ñu ngi jàkkaarloog yow danga ko rafetal da nga ko yéwénal def ko na mu waree sa boo wéetee ba làqu defe ko sa bakkan defe ko lu mu la soobee loolu mooy ngistal def rek ngir bëti nit ñi waaw wasumaatu ak ndéggital dafa xaraam ci mukallaf ndéggitalu mooy lépp looy wax nit ñi di la ci di la ci gis di la xool yaa ngi koy rafetal yaa ngi koy euh, def na mu ware waaye bu fekkente ni kenn déggu la nga wéet ak sa bopp Ah, nga waxe ko nam la neexee mooy wax ngir gistalu waaw wax ngir gistalu waxoo ngir yàlla waaye dangay wax ngir gistalu kooku dafa xaraam ci mu kàllaf wal ak iñaan iñaan dafa xaraam ci mu kàllaf waaw ñenn ñi di ko wax kiñaan waaw te yenent bi alayhi salaatu wasalaam da ko waxoon ci xaddis ni alxasadu alxasuudu laa yesuud waaw alxasuudu laa yesuud mu ni ku xa ah, ku iñaan doo nekk sang mukk ku iñaan doo nekk sang mukk euh, moo tax iñaan tam lu jara maytandiku la ndax lu bon la wal buud ak mbañeel mbañeel dafa xaraam ci mukallaf dafa xaraam ci mukallaf nit lu mu am yéene ko ko nit euh, bu ko beñ sa bul beñ euh, am amam bu ko beñ ngir dara wala boo demee ba koy beñ sax na nga ko beñ comme nañ ko waxe woon ci leçon démb bi na nga ko beñ ca yàlla tax waaye bu ko beñ ngir sa bakkan ak sa coobaree bopp wa ru'yatu ak ngistalu dafa xaraam ci mukallaf waaw wa ru'yatul fadli ak gis nga neen euh, alal xëyri ci kaneen dafa xaraam ci mukallaf gis nga neen ci kaneen mooy que euh, jàpp ni koo gis rek moom maanaam kën la ëpp koom-koom ëpp la daraja rek nga jàpp ni moom moo la gën nga gën a mën a toroxal sa bopp kooku dafa xaraam ci mukallaf nit da bëgg sa bopp waaw bu la kenn gënal sa bopp wal hamzu ak piis dafa xaraam ci mukallaf bu ñu nee piis nag moom euh, ci suñu mbokki jigéen ñi la ëppee waaw maanaam xeetu jëw la tey nga nekk ci mbooloo bëgg bëgg a bëgg bëgg jëw nit di ko ngóobu wala nga koy piis yooyu yëpp tàllal làmmiñ yooyu yëpp mooy xeetu piis ngir def ko def sest bi ngir ngir rek euh, jëw ko tey dafa may wax damay waxtaan ak yow ñoom bu dee jigéen ñi buñ toogee ci seen langage yooyu dañ naan borom kumba si wala boroom boroom boroom tubay ji sans sans langage yooyu la ñuy jël ngir lan jëwee ko nit te loolu dafa xaraam ci mukallaf mooy hamz wala hamz ak regeju dafa xaraam ci mukallaf dafa xaraam ci mukallaf regeju wala absu ak fo fo dafa xaraam ci mukallaf rawatina fo moo xam ni da koy topp ba mu dox sa diggante ak jaamu yàlla dootoo dem sax di jaamu yàlla ngir lan toog topp fo mi ba waxtu wa rëcc la Euh, kooku dafa xaraam ci mukallaf wa suxriyatu ak reetaanaate dafa xaraam ci mukallaf reetaanaate bu ñu koy wax mooy euh, addexku la ñu xamoon ci ree waaye bu ñu nee reetaanaate mooy yaa ngay reetaan nit ki ci say wax ci xeetu langage koo xam ni tey ma ngay wër ngir lu mu taal ndogu amu ko mu ñëw ci yow diis la soxla bi nga ni ko sàllaaw day man mii sax awma lu ma taal wala ñu ngi laaj xaalis mom amu ko nga tok ci wetam nan ko ay buma amon nangam te yaangi denc ay milliards koku retan nit ki ki sakku la euh defo ko ngir euh, waxoo ko ngir lo xamni deug la ci yow la nga am denc ko am ci ay toni toni ton tourne ni amoko ngir di ci retan nit ci koku dafa haram ci ku kàllaf xam ko dañi tegandi ko suñu baram rek bo suba di wax lañ nan wax alamana allahu min taqwa wa salat wa rabbil alamin